waaw xam nga élection yi moom ku ne xam na ni Macky Sall moom dafa programme pour sàcc élection yi comme ni mu ko defee am na boo gisee élection yi jàll Sénégal mel ni dëj ba fi may wax yow Macky dafa am problème problème bi ma am mooy xam na ni gañuwul élection yi moo tax que bu ma gisee ñenn ñu ñàkk jom ñi bokk APR ñàkk jom mënul paas ñu gañe la si dëkk bi Touba ngay rafetlu sam ngañaay naan maa gañe nan waaye am naa lii kooku ñàkk jom la ñoom li leen waroon def mooy dañoo waroon a jéggul Macky Sall ndax xaalis Macky Sall bi ñu jël sàcc ko leen ñu tabax ko ay kër leen jënd ko ay oto dañ fekk ay jabar muy APR wax mais bu ne gaye la kat gaye nañ waaye sama ngañaay eh, am naa lii nangam nangam mais ku ne xam na électoral dafa yokku ah ba noppi ñaareel bi mooy ñoom bi ñu ñëw élection yi dañoo sensé lieu de vote yu bare bare bare yoo xamante dañoo sensé carte électorale bi te ñun xamuñu ko am na ñoo ji may wax yow bindu nan am seen carte dem war a woote ñu dem si bureau bi ñu ne seen tournée ku fa kooku ak sàcc la bureau yu bees yi nga xamante def ko yëpp c'est un bureau yoo xamante ni Aliou Ngouille Ndiaye moo ko woon ni taux bi dana wàññi ko wala ñoom dañuy gagné ndax Aliou Ngouille wax na ma assemblée nationale directement mu ne ma élection législative Ablaye la woon mais élection yi nga xamante ne mooy président da ngeen xam ni ñun da ngeen gagné ma ne ko yow Aliou nan dem ba élection yooyu jot na ma leen gagné woon Touba ni daan di gagné lu ko ëpp te ku ne xam ne da leen humilier Touba loolu nag dama lay xamal ni ñoom lu nekk def nañ ko indi fi militaires yi pour que maanaam population bañ a génn wote ji xupp askan wi yépp mais teewul askanu Touba Serigne Touba moo leen gën a seen bakkan Serigne Touba moo leen gën a lépp ba tax na ku leen bëgg a ñàkkal fayda ak ku tudd Serigne Touba ku nekk mais euh, ñoom doo leen am loolu moo tax que Macky Sall munta am Touba dara dara ba fi may wax ak yow du question diggante mi kilifa yi ko intéressé ma li ma intéressé mooy peuple Touba bi dañoo am maturité boo xamante ni tey jii képp koo xamante ni ànd nga ak Macky Sall te Macky Sall weññu kuul la mu doon def yëpp mu bàyyi ko peuple tubaab du si am maanaam ndam incha allah.